Amadou Ba safeelu waat Abdoul Ahad nettali waat Amadou Ba lii la waxaat te lépp daanoo ci safar Amadou Ba safeelu waat Abdoul Ahad nettali waat Amadou Ba lii la waxaat te lépp daanoo ci safar Amadou Ba jógal taxaw ngir soññi waat lay taxaw Abdoul Ahad jàngal ca kaw nu soññi màggalug safar ahmadu ba jógal taxaw ngir soññi waat li xew abdul ahad jàngal ca kaw nu soññi màggaluk safar bis moo jara fàggul bis moo jara dagul Cheikh Bamba moo nu ko digal bis bile a ñor tefar naaxub ganaar ak i gëléem bu kenn xeeb bu kenn yéem ngir ku ci jëf faw nga tiim ku ca jëful ci mépp mbir réewi Europe yi yëngu leen réewi arab yi farlu leen doonay resoolu woona leen xadim waaf basar na aéroport yi defi géew na air er mag yi jóg te biiw na yëpp jóg na yëpp biiw tuubaa ñu màggali safar nan dellu saytu booba saxaar yi deqi korne waaye gaar baa ngi doy na peer waaye na ñépp fekke si safar waa Aasiya ak Amerika nañ waaj te jëm si mbër ma libéré Afrika mooy woote màggalug safar luy nit ku weex ak nit ku ñuul na ñépp yóbbaloog cofeel te wuy si Seex Bamba ca kiy woote yàgg na defar luy nit ku weex ak nit ku ñuul na ñëpp yóbbaloo cofeel te wuy si seex bamba ci teel kiy woote yàgg na defar bu kenn wuute woote bii ku mën na wuy woote bii kiy woote mooy donay na bismillahi rahmaani rahim ñu tàmbali liggéey bi bu ñu nuyoo sëriñ Bassirou Abdou Khadre bu pare ziar ko ndokkeel ko ci suñu turi kilifa du président de la république Sall di premier ministre am Mohamed Boun Abdallah Dionne di ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye di membre du gouvernement bi yëpp nuyu ko ci suñ tur nuyu ko ci turu chef de service fi nekk yëpp di liggéeyal état bi di ko wax mu jottali suñu nuyoo suñu ziar. xalifa général des mourides Serigne Sidi Mokhtar Mbacke di nuyu ñu àndal yëpp xanaa wax leen rek dellu siwaat nañ tey pour defaat réunion CRD ngir préparer màggalu tuuba li ñuy def nag mooy jox sëriñ bi bu ñu koy sargalee ba pare gërëm ko ci jàppale bi gërëm ko ci taxawaay bi di ko tamit félicité ci ni mu jàppee kuréel bi ak ni mu koy doxalee dañ koy jox rek mu ñaanal ñu ñaanal ni yàlla dugal ñu si jàmm génn si jàmm ñi am si ndam te si liggéey bi mucc ayib ba amun a am payoru sëñ Touba na sëñ bi nañ lay bàyyi nga ubbi ñu ñaan alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al mursalin moom li nga xam ne moom lañ jël teg ko ci kanam ànd na ko yéen muy liggéey bu rafet ak déggante ak xam ne jubluwaay bi lenn la mooy li sëriñ bi santaane ci bis bii di bisu sëriñ Tuubaa ñu fexe ba amee ko ñu ko sëriñ bi bëggee ñu rafet njort bu baax a baax nag di dalum xel ci ne ni ñu ko tàmbalee ba dañoo àgg ca réunion bu mujj bi ñu def ministre de l'intérieur yàlla mën nañoo dimbale ba li ëpp ci yi ñu waroon a waxtaanee suñu borom dimbale ba mu àgg yi ñu ci wax am na ci yoo xam ne faaw ñu fàttaliwaat ko mooy li jëm ci hôpitalu Matlaboul Fawzayni kon loolu problème la boo xam ne ñëw nañ ci man wax ma ko yoon ñu ngi ci doon liggéey ñaari at wala lu ko jege ba mel na ne àggoon nañ ca jeexital waaye loolu itam ñu ngi koy soññ kilifa yi ñu fexe ba góor góorgóorlu ci ba ñu fexe ba bâtiment ba nga xam ne war nañ ko faa defar ñu gaawal ko ndax buñ ko tëjee mën naa indi gàllankoor ci liggéey bi wàllu forage ba nga xam ne paanoon na itam wax nañ ko waa ministre bi yore wàllu ndox ba yabal na fa équipe bi di ko xool maa u rahmati bi nga xam ne sëñ Cheikh Aliou moo ko jiite itam mel na ne jël nañ décision ngir fexe ba régler ko xëcc fa ay ba man fa agsi ngir diggante bi ndox mi bañ a ñàkk kon ci wàllu li ñu si waxtaan lépp ci wàllu wér gu ak wàllu assainissement nga xam ne mooy setal geeg ak yee ci aju yëpp dégg nañ li ñu ci wax wàllu courant bi itam sëñ Ousmane fàttali na ko léegi sëriñ Abdoul Ahad bu ñu ci waxtaan waa Sénégal rek waaye bëgg naa ñëw tam ñu gën cee def yitte ndax dëkk bi forum bu rek dafa lëndëm daanaka loolu buñ ci waxtaanee waa commune bi ñu seet nuñ ci mën a jàppalante fexe ba balaa màgg bi ñu fexe ba dëkk bi gën a leer ndax loolu itam bokk na ci wàllu sécurité ndax bu lëndëmee rek ñu bëgg a def lu ñaaw day yomb ci ñoom. wàllum ndox mi itam tàmbali nañ ko comme ni ma ko waxee léegi wàllum yoon yi itam waa Azirut ñoom itam ñu ngi ciy taxaw taxawaay boo xam ne tàmbali nañ fi ay yoon yu bari yoo xam ne ñu ngi koy def ci biir dëkk te wax na ne yi nga xam ne nañ ko tàmbali danañ fexe balaa màgg gi ndax dafa def yeneen tëli yu bari yoo xam ne war nañ ko def ci biir dëkk yi ñoom ñu ñu leen di sant ci seen taxawaay boobu di ñaan suñ borom mot ci lépp. waa police ak gendarmerie itam ak sapeur pompier yi nga xam ñooy wàllu sécurité nit ñi ñoom itam ñu ngi leen di sant ci seen taxawaay di lu liggéey bu weesu daaw bu weesu daaw fexe ba ni ñu ko defoon daaw ñu fexe ba ren ñu gën koo jëmewaat kanam yokk ko ndax màggal gi taxawu ci benn barab loo xam lu fi ñëw ren bu déwénee di yokkuwaat boo ko bëggee natt ci fa nga yemoon daaw nga yemale ko fa bu baaxoon daaw kon ren da nga am i kon loolu lépp tam ñu bàyyi ko xel bu baax a baax di sant ñi nga xam ne ñoo te jataay bi ñëpp di leen gërëm ci kenn ku ci ne li ubbee ab dënnam ubbi xolam lam xalaat ne bu ko defee liggéey bi dana jag mu wax ko ñi ci war a jël ay responsabilité jël ko ci kon ñoom ñëpp itam ñu leen ci sant cant goo xam ne ci sëriñ bi la bàyyi ko ndax liñ ci def lépp moom lañ ko defal di ko jeexale rek ci leen ndigal loo xam ne sëriñ bi da ko joxe jëmale ko ci dëkk bi teg ko ci loxol maire bi ci njiital sëñ Abdoul Ahad Ka war koo ànd ak gouverneur mooy ci li ëpp ci mbedd Touba yi xam ngeen ni Touba day dëkku yërmande dëkku yërmande gi mu doon nag moo tax sëriñ bi waxtu bu nekk day jiital yërmande yi ci nit ñi loola kenn mënu ko fi jële ndax moo ko sajj waaye nag dem na ba àgg foo xam ne dem na ba kenn mënut a ndax ku jaar ci corniche da nga xam ne corniche yëpp dagg nañ ko ay place dagg ko ay bitik ba kenn xamatu lu muy nuru loolu itam bu continuer dana mujj yërmaane ju ñu ci jubloon wala ndimbali ci nit ñi dana jur li ñuy wax saafara su jur jàngoor lay doon moo tax sëriñ bi jox na ndigal maire bi mu ànd ko gouverneur mu jàppale ko ci ak service yi nga xam ne ñoo ko ci war a ñoom la ci war a àndal ak waa Touba itam tàmbulee ko ci chef de village bi sëriñ Abdoulaye Jaxate ak ñi nga xam ne ñoom la ko seq di mboolem chef de délégué de quartier yi ci Touba yëpp ñu ànd ko moom xam ne liggéey la boo xam ne sëriñ boo ko santaane ñëpp jàppale ko ci ñu fexe ba mbedd yi yëpp set ba euh, nga xam ne ay nur ay ñugg ñugg yëpp ñu fexe ba dajale leen ci benn barab yi ci doon ay bitig am nañ ci ay xalaat ndax am na fi ay marché yu fi newoon ñu ngi tàmbali te àggagut ñu ci xalaat di ci wax ak état bi ñu seet nu ñu ci mën a jàppale nit ñi ba ñaan ñi tuxale foofu ñëpp ñu jël leen yóbbu leen foofu waaye loolu laa sëriñ bi digle na ko santaani na ko muy ñaan itam nu mu gën a gaawee bañ koo acc màggal bi di jege waaye mu bañ a weesu fukki fan ak juróom ñu fexe ba balaa boobu ñu tàmbali ko jox nit ñi ay dere ñu mën cee liggéey ba du andi gàllankoor bu metti ñoom bu ko weesoo nag ñu feexe ba place yooyu ñu setal ko ba foo jaarate ci dëkk yi mën a jàll waaye buñ ci jublu yërmande mujj ni di bëgg indi ko kon ñu ngi jeexale foofu kàddu yi ñaan suñu borom yóbbuñu ci màggal gi jàmm ñu dugg ci bisimillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin day ceeg ndimbal lu yàlla day ceeg tawféex day ceeg ngërëmu Sëriñ Tuubaa Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xam ne ci ndigalam lañ koy defee tam suñu borom bàyyi ko fi yàgg liggéey Sëriñ Tuubaa ñu yàgg topp ci ginnaawam yàgg jëfe ay digalam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa nga ko waxee tamit am na esprit bu ñu gis ko ñu ngi koy rafetlu li Senelec ni dina dem seeti bi ñu waxtaan ñu ngi koy rafetlu li ONAS taxaw pour ànd ak mairie bi ñu taxaw si wàllu euh, édifice public ñu ngi koy rafetlu ñu ko Euh, u UCG waxee tamit que dinañ ànd ak maire bi pour ñu mën a transférer des charges yi tamit ñu ngi koy rafetlu liggéey bi noonu la il faut ngi si déggoo di si àndandoo ko la ñuy xëcc kii naan du sa du yaa moom kii naan moomuma ko ba kàpp jaru ko ñun ñëpp dañu ànd liggéey bu ñu àndee liggéey rek incha allah liñ si bëgg nañ ko si am kon nag bëgg naa effectivement ñu def réunion yooyu ànd ak Senelec ngeen xool lan ngeen di toppatoo si éclairage public bi ba dëkk bi gën leer. ànd ak UCG ngeen xool fu ñuy yóbbu décharge yi créer décharge yu bees moom la moom nga ànd ak également waa ONAS ngeen seet naka lañuy def ba ubbi mën a ubbi bi publique yi si ñu tëj ubbi na far na leen depuis daaw di leen tëj normal ñu ubbi leen donc léegi yëpp ñu koy xaar si yéen ci seen wàllu liggéey et di rafetlu vraiment ni ñu àndee di liggéey boobu ba léegi je pense que rek du si màggal gi tey la fa gën a feeñ yaakaar naa ne màggal yi weesu yëpp noonu lañu àndee liggéey ba li ñu si am tamit si ndam yàlla defal ñu ko kon nag ñu ngi remercier bu baax bu ma gërëm bu baax sëñ bi waa mairie bi si seen taxawaay xanaa taxawaay bu rafet la boo xam ne ñu ngi si ànd ak ñun boobu ba léegi ñu mottali wante si lépp lu ñuy def nga ñaan ñu yàlla defal na ñu continuer liggéeyee noonu si barke sëñ Tuubaa dinañ continuer comme ni ko sëñ Ousmane nga laajee tamit di def ay réunion ñoo sectorielle secteur par secteur dinañ ko ne di ko pour ñu mën a xam léegi naka la mën a conduire opération bi ba keroog ñu yegg si màggal bu ko def si wàllu santé nañ ko def si wàllu hydraulique wàllu euh, secteur bu nekk nañ ko def def réunion yi ñu mën a dox ndoxal mbir ba fii ba màggal ñu gën mais également dinañ def état major nañ ko defee woon daaw nañ def état major boo xam ne bu demee ba màggal gën a jege moom day continuer di siéger continuellement pour xam ne lépp lépp loo xam ne ngeen jégal ma difficulté la bu ñu mën a am si biir exécution bi ñu mën ko lijjanti donc état major boobu dinañ ko tegaat comme ni ñu ko tegee woon daaw am na lu préfet proposé je que sax dinañ ko élargir gën ko yaatal ba xam ne képp koo xam ne yaa ngi intervenir directement si màggal gi ñu mën la si boole. dinañ dem tamit si réunion nationale yi ni ñu ko daan defee euh, démb rek maa ngi si wax ak ministre de l' intérieur euh, bu bees bi di Aly Ngouille Ndiaye ñu ngi si wax démb nañ taxawalaat rapidement yeneen ñaari réunion yi. muy réunion bi xam ne war nañ ko def Dakar ak réunion bi xam ne war nañ ko def Touba leen wax tamit fasteefam moom tamit pour réussir bi parce que premier màggalam la foofu mu réussir ko ñëpp ñu war see jàpp ñu ñëpp ñu mais également je pense que moo nekkoon ministre màggal yi mun naa wax ci temps yëpp si Touba atum ren bi màggal yëpp moom moo fa dem teewal bi gouvernement màggal yëpp moo ko teewal gouvernement atum kenn raxu ko si donc mun nañ wax ne xam na bu baax jafe-jafe yi nekk Touba këram a ngi Touba taaliba la waaw ah, donc vraiment xam naa ne kenn gënu koo sawar kenn gënu koo sawar pour que def liggéeyam liggéey bi jëm si màggal bi kon ngeen ñaanal ko yàlla li ko ko président dégg yàlla defal ko si ndam ndam lu rëy ndam lu wees loo xam ne képp koo xam ne jaaroon nga fi amusoon lu ko am ah, mu ngi lay tàllal loxo seen bi nga ñaanal ko si tamit mu ngi lay tàllal loxo la wan ne daal pare na liggéey lépp lu si ay moromam doon def da def lu si kàddu yooyu laa amoon di ko indi di dellu la gërëm bu de ziar man it di la tàllal loo xam ne nga ñaanal ñu yàlla mag CRD bi yëpp pour que lépp lii xam ne dugg nañ si ñu mun ko liggéey di si encouragé préfet di si encouragé sous préfet di si encouragé également chef de service fi toog yëpp leen wax ne loolu la suñuy président di xaar si ñun loolu la suñu premier ministre di xaar si ñun loolu la suñuy ministre xaar si ñun que ñu def lépp loo xam ne war nañu pour ñu mën a réussir màggal gi bëgguñ daal boo ëllëgee ñu naan lii sooxee na administration ko waroon def defu ko vraiment nañ def tout pour que lépp loo xam ne jël nañ koy engagement fii ñu mën ko réussir yaakaar ñu ko doon def at yëpp ñu góorgóorlu si pour gën a yokk encore li ñu doon def lu ko sëñ bi waxee sànq rek loo xam ne day yokk mu ne man lii laa defoon daaw lii laa defaat ren non da seet li nga waroon defoon daaw yow nga defoon daaw xam pour essayer si yokk pour mën a prévoir xam ne la war a siy yokk kon nag dellu si di sàkku ñaan nga ñaanal yàlla defal ñu si loolu xanaa nga may ma tuuti rek xam naa sama mbokk yi nañ soxla tuuti français je voudrais remercier très sincèrement Serigne Bassirou Abdou longue vie et beaucoup succès dans le travail accompli au nom de toute la famille de Khadim Rassoul je voudrais également redire donc le plaisir que j'ai avec mes collaborateurs les chefs de service les préfets les sous-préfets à travailler pour la réussite du Magal c'est l'honneur du musulman aussi, vraiment, de s'engager pour la réussite de l'œuvre de Sintouba. Et d'espérer effectivement, comme tout le monde bon musulman, pour cela rétribuer donc au centuple de notre peuple. Je voudrais également dire, redire l'engagement du ministre de l'Intérieur, le nouveau ministre de l'Intérieur, Ali Goundiaï, qui connaît bien Touba, parce qu'il a sa maison là-bas, parce qu'il est lui est élevé, mais parce qu'également, ces dernières années, la République, Et je pense qu'il connaît bien le secteur, il connaît bien la matière et il engagé plus que tout le monde pour la réussite du Magal. Je voudrais vous dire donc euh, qu'il nous devons, nous aussi, en tant que euh, fonctionnaires, d'avoir le engagement. C'est son premier Magal, il doit le réussir. Mais en plus, c'est vraiment son Magal, il doit réussir. Donc, c'est Magal. Je voudrais dire au Marabout que bien noté donc, les problèmes qui ont été posés dans l'éclairage public. avec la Sénélec avec la mairie que prendre à bras le corps ce problème et qu'on va essayer effectivement de heureusement que c'est les poteaux qui manquaient toutes ces années je que cette année on a eu des assurances que les poteaux sont là et donc on va pouvoir remettre en place tous les poteaux cassés mais également faire l'effort nécessaire pour changer toutes les ampoules nous avons également bien euh, transfert de la décharge des décharges même parce qu'on va créer effectivement Mais également, nous avons bien entendu les problèmes posés pour les restes partiels qui ont été créés depuis l'année dernière. Parce c'est le grand temps, le grand temps qu'on les ouvre. On va y travailler pour les ouvrir définitivement, pour le Magal et après le Magal. Voilà que sur l'hôpital, euh, le Marabout a déjà beaucoup travaillé, nous a beaucoup aidé là-dessus. On est assez avancé. Euh, peut-être qu'il y a changement de ministre, c'est une continuité. on espère que par cette continuité administrative, on pourra effectivement très rapidement mettre en œuvre les solutions qui ont été arrêtées, les solutions qui ont été trouvées. idem donc, surtout pour le scanner. Espérons que les promesses donc, déjà faites donc, seront tenues, qu'on pourra avoir le scanner avant, Parce que nous indispensable à un hôpital de ce niveau. pris donc bonne note euh, et assez de voir à des dégâts de puissance seront menés, très rapidement. On va dès la semaine prochaine, je pense, on va faire de plein pied dans cette opération et pouvoir mener cela très rapidement. Et continuer même pour les doses des autres dégâtissements qu'on faisait habituellement en période de mandat. Ça, comme vous l'avez dit, on ne va pas attendre que le mandat se rapproche. On va atteindre prendre le problème à prendre et essayer de le solutionner pour pouvoir satisfaire le désir du marabout, les voeux du marabout. En tout cas, ñu ngi koy jox résultat sëñ bi donc di la tàllal ma ko sàkku ñaan ñaanal ñu yàlla may ñu ndam si li xam ne ñu ngi koy liggéey jërëjëf